kon euh, mbokku téléspectateurs yi am mbégte nag euh, dellu seek yéen ci seen ñaareelu xaaj yi seen émission bi di wareef ci télévision Futur Média gannaaw ba ñu dalalee a euh, eh, Mbaye Mamadou Mbaye Garmi kenn ci ñun ñu am mbégte tamit dalal seen doom suñu doom seen caat Zeyna Zey. waaw Pape la. waaw kay Diouf ñoo ko bàyyi. li doy na la. waaw doy na ma. <laughs> daal di ngeen nuyu la yow tamit. waaw tey Diouf ñoxo baay. Euh, nuyu naa tamit téléspectateurs yi jàkkaarloog TFM di seetaan Wareef fépp fu waay ne nuyu naa la bu baax a baax ci sa tur ak sa sant. Zey xam nga ko semaine euh, dernière. Euh, mhm. ñu ngi nekkoon ci temu coro rap faru rap ak. tamit yii nga xamante ne nekk mhm. ñu ngi ko ciy boole te bokk ci. dëgg la xam nga parce que gannaaw ba nga xamante ne ñu ci ëpp ak ni ñu ko mën a tuddee rek. alaaji mhm. ñii di wax àndandoo ñii di wax. rawaan ñii di wax rabak luñ ci mun a wax rek mm-hmm. euh, jàpp nañu ne ci réalité africaine yi la bokk de manière générale rawatina Sénégal mm-hmm. kon ki nga xam ne moom dund na ko ba jàpp ne am na àndandoo boo xam ne mu ngi ci moom mm-hmm. mu koy yëg ndax am na ñenn ñoo xamante ne dañu naan jaxran seen faru rab xam nga donc ñi koy gis xam nga yow ndege ni daa waxoon nga ma ne da nga koy gis muy sol ay wana biis yaa ma ko waxoon fii nee na moom ki mu am jeune homme la. mu ne ma te waxu ko or antenne non man dama koy. xam ne un denc naa ko un an après. allah kon de moom du ko weddi. waaw du ko weddi non taxawal rek man xam nga xam nga denc naa ko un an mu ne ma mu ma ne ma man ki ma am dama koy gis nii jaxan ma ne ko sëy soo ko gisee jaxeen mu ne ma jeune homme la mu ne ma dafa boo mu def casquette ma ne ko ah, ma day solu wana biis ma ne ko luy wana biis mu ne ay dàll yoo xam ne xale góor moom la ñuy sol léegi nag ma ne ko man dama bëgg ku xool solati wana biis nga sëy li ma nettal ma waxuma woon yow la woon waa démb léegi moo sol mu ne lii mooy wana biis kon xam nga moom du ko weddi parce que daf koy gis jaxat léegi tamit mu am sa beneen maman boo xam ne moom eh. weekend bi daf ma ne kooku daf ko gis mais kooku daf ko jox tuur carrément ne ko man maay diw wax ko tur wax ko sant xam nga baax la jox ko sant bu doy waar ne ko noonu laa tudd ma am tamit ci temps bi ma nekkee rajo benn jeune fii boo xam ne allah ji rafet yaa ji ndeysaan mu may déglu sax yaa ji kan la santoon maa ngi koy nuyu fu mu mën a nekk mais indil ma ko xale ba à l'époque elle était brillante mun jàng elle defe naa ne à l'époque quatrième la doon def wala wala âge BFM mhm. mais daal fawrab bi daf ko sonaloon mu koy gis jax ren waa ji soo gisee satala boobu doon téye ak der bi dëkk diggu géej di ko xale bi di ko gis mujj gi xale bi dafa yoroon ay kaye yoo xamante ne su ko yëfi jàppalee mhm. mun na bind ay anglais ba mu fees bind ay kii ba mu fees donc mais à l'époque ñii nga xamante ne tamit alaaji ñoo ma ci jàppale woon defuñu comme jibar yi ñuy wax. Mhm. parce que bu ñu ko déggee ma def ci émission confidence dañu dañu wax ne ne que benn dañuy jël xale bi gratuitement mais première chose bi ñu def loo xale bi dañ ko muurloo xam nga. di ko faj di jël dañ dem ba nga xam ne xal yaay bi su amul paas ak xale bi sax ñooñu ñoo ko jox paas xale bi di dem ak di ñëw mm. jëndal ko ay yére nuuru jël ko prise en charge total mm-hmm. ba jamono yi may wax xam naa ni sûrement alhamdulilah kon xam nga ni ñiy gàmm ak ñiy raas dem bokkul mm-hmm. parce que fu ñu toogee di wax ñi nga xam ne ñooy jibar yi mm-hmm. dinaan kaay ma bind sa nëq kaay ma doxlaak kaay ma kii la am na fa ñeneen ñoo xamante ne alaaji ay sëriñ lañu li ñu xam mooy tuur yàlla li ñu xam mooy zikr def ko te yàlla tax ñu ngi fa waaye daal sëy comme am nga wan a biis kenn ku ko am faru rab ak coro rab sa am na sa ay morom yoo xam ne am nañ ko mais ñu ngi jàkkonteel loo xamante ne mooy nag par la force da wax waaw ah di nga wax ah yaa ma ko wax de yaa ma ko wax moom <laughs> yow xam nga ne yaa ma ko wax euh, mais tuta dégg dama bëggoon dellu si tuuti ci ginnaaw ci ki nga xamante ne moom moo mujjee woote sànq xanaa voilà hmm. ndax li ko dal tuta dégg metti na lool teg nañ ko naqaru àddina goo xamante ne giiru dundam du jeune la comme yow voilà jeune hmm. la tegee bëtam ci doomam mm. xëy na dina ko fàttali lu bëre xanaa rek nag ñu ko Papa Ndiaye euh, loo waxee mu xam ne xale bi du ci dara mm. et que euh, ni mu méttee ci moom xëy na xale bi suy màgg noonu lay méttee ci moom ndax dina màgg soxla bàyyi du ko gis mm. dina màgg bëgg a gis baay xëy na moom sax dina am problème pour wax ko kan mooy sa baay ak loolu kay kenn du ko xale bi moom moo tax euh, bëgg naa tamit wax nit ñi parce que ñim fii dal tataa diggéen bëri na ñu wax ko ñu ñàkk ko wax te xale yi jigéen yu bëri tam su leen dalee dañuy làqatu ah. duñ ko duñu ñemee duñu ñemee waxal ak jeunes yi ndax dañoo ñemee sëriñ léegi voilà duñu ñemee dem ci seen parent yi wax ko mm. ce ki fekk dañ koy muñaale ba lu ni mel yenn saa ay ëmb mën na leen si fekk wala sax yeneen feebar mm. moo tax may wax rek euh, ku képp koo xamante ne loolu dal na la mm. yàlla bu mu dal kenn déjà ak képp koo xamante ne violé nañ ko nu mu gën a yow sa a bis bi ki ngay gis noonu sa ki nga jàpp ne mooy sa àndandoo sa fal nga mës nga ci jéem a dem ci ci maamën ci mës nga ci jéem a dem ci mais loolooy jàmm ji allah ji parce que xam nga ku ci dem ah moom daal ñàkk dem daal defe naa ni moo sa kon it sa sa yaay ko dégg mu ngi bitim réew di ma dégg ànd rek déggan hmm. ki génn sàng hmm. kenn gënta sàggandi ndeyam gis nga soxna déggan hmm. dafa am loo xay li gone munu ko waaye mag a koy kondir dañ ni permis ñett la poids léger poids lourd waaye li ñëpp di wër mooy transport en commun mm. mooy waajur wu xarañ ci doom di ko sàmm mm. wala bu nàndite waaw mu la yóbboo ci sëriñ mm. wax li ma bëgg sama doom wël bu daa mu ni moom képp na ñëw war na ngaa mën a dawal xelum nàndite ba xam lan la parce que am na yoo xam ne gone gone rek la mën a maay jëli sax maa yóbbu gone la mën a doon dañ waxtaan si am na si am na kii ñoo xam ne ñu mëtuñu kilifa dëgg la te seen doom def nag it ñoo ko teg dëgg la ba adduna di normal mm. bëggu sax mm. nit ñee sensé mm. waaye bu doon démb ay dox di sàmm njabootam te njaboot du xam fu ñu ko sàmmee dëgg la laaj moo daan am démb dëgg la laaj waaye dëkk ku dëkk nga ni dem moom képp na ñëw waaye nga ni teg tëj sa néeg loolu nga naa mën a anama sama sama waa dugg sax ko mën a kan alors ñaa kër kin ba xam woote bii mu ko woo moom dong te gone dong la hmm. lan moo ko wundu hmm. bu ko jiitaloon na mu ko jiitaloon ba mu fay dem hmm. yàlla mën na ci ndog boo xaye bu buru suul toj waaye doo yebal xale bu ndaw dëkk ko dëkk nee na ba mu demee la gëlëm lu ko soob mu def ko ko booba c'est trop tard am na yoo xam nañ di dimbee gone yi te xale it nañ di moytu nañ di moytu mu wér am na ñoo xaye xam nañu lu bon waaye mënuñoo def lu baax ki xam l bon nag te mënul lu baax fu mu jaar lay jëf ki bëgg nag te contrôlewul mm. du xam fu mu mm. ko day yomb mm. jële si ci ligne bi caat dëgg la nax ko day yomb asalaamaaleykum maaleykum salaam ku baax maaleykum salaam waaw man la Serigne Mbaye Gueye Dieng saltige Wakaam ndeysaan Dieng Dieng Dieng Dieng Dieng Dieng Dieng ñu ngi leen di ziar bu baax alaaji sa xarit Dieng Dieng Dieng Dieng alaaji Njaay loo Njaay yàlla yàlla guddal fan wi amiin sama xarit Dieng <laughs> yàlla bàyyi la sam xel. ba amiin amiin jërëjëf jéeg vraiment ñun suñu lay déglu guddi gi dañuy kontaan dañ lay suñu lay déglu dañuy. ndeysaan dañuy tuutal sa kaddu di di ko bége. <laughs> Eh, sa doom jooju sa bor tamit. ah soxna Degene macha allah. ah oh. <laughs> bés bu yàlla sàkk nga markel doomu aadama yi ay point ci ci ci ci ci ci ci lu baax. foo ñaanale nit ñi. ndeysaan tudda yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam mu ñëpp ne sallallahu alayhi wa yaa ngi leen di marqué loo ay point wallaay wallaay sallallahu alayhi wa sallam. donc yow ku baax nga. ndeysaan ndeysaan jërëjëf Dieng. xam naa ne ku baax nga ndax sama lettre ba ma leen bindoon tam fàttewu leen. déedéet sañuñu ko Dieng sañuñu ko. waaye dafa am ñaari paquet tey yu ma indi ba si ñett. bisimilah bisimilah. benn bi dama koy jox xale yu jigéen ñi. ndeysaan. ndax ma xelal leen tuuti. Mhm. kuy jog di dem ci sëriñ. Mhm. sëriñ bi di la wax lu dul noonu. Hmm. du sëriñ si nag ñaar la du sëriñ si ñaar lañ. Hmm. dafa am sëriñ boo xam ne sëriñ la bu gëm suñ boroom di doxal diine. Hmm. ko ci yoon màndu. am sëriñ boo xam ne dafay wax ne sëriñ la dafa tudde boppam sëriñoo. bay def yooyu muy def. di nax xale yi di leen tëdd ñooñu bu fekkee na xale yi am nañu xel rek. Mhm. war nañ mën a euh, jàpp ñooñu ci nu mu leen neexe mhm. sëriñ bu ci génnati sab nopp. Mhm. na jigéen ji téye ci noppa bi. yuuxu ñëpp jëw. parce que benn yuuxu boo ko defee rek ñëpp dinañ dugg si. ku dugg gis ñu téye si nopp sab nopp kay dinañ xam nopp bi lan moo ko génne. nopp waaw. waaw bu bu ma waxee noppare ah, waaw waaw dëgg la. <laughs> wax déedéet <laughs> waaye papa yeggali wax nga dëgg. wax na dëgg. waa ñaareel bi. Hmm. nga yor sa portable teg sa boor. Hmm. lu mu la wax nga enregistré ko ba pare ñu yóbbu ko ñooñu koy def dañ leen war a capté dañ leen war a tàpp. xale yi nañuy enregistré wax nañ dëgg. bu buñ ko defee rek jariñ mucc. ay waay waay li joxe nga xel de. ñaareel bi. Hmm. mooy xaw kenn mënul faj nangam amul kooku ñi koy wax dama defa na seen xel dañ ko jariñoo dëgg la xam-xam ñaar la ndeysaan jigéen nga xam ne dafa ànd ak laab mm-hmm. soo buggee toog mm-hmm. ne dafa am jafe-jafe mm-hmm. wala dafa am feebar bu ne ci moom nga bëgg ko faj xanaa doo jël aaye alquran yi yi nga xam ne suñu borom barkeel na ko nga di ko jox mu koy sango dina am nag pexe yoo xam ne moom ngay jëfe moo tax mën a xam-xam ñaar la dafa am bu weex bi am bu ñuul dëgg la te bu ñuul bi dara yu si lu baax rek la dëgg la li ma joxe woon noonu ci karaw gi waaw billaahi laa ilaaha illaa huwa ku ko def hmm. mën naa la giñal ci màggaay suñu borom ne di nga mucc si kant suñu borom ah lii de moom dëgg dëgg baaxee nga askan bi nag jeng maa ngi ciy teg sax leneen waaw di nga gis léeg-léeg koo xam ne téen ndeyam mm-hmm. xëy na bàyyam parce que am na saay-saay bu ko noot ci boppam. Mm-hmm. di ko mm-hmm. loo Njaay defe xam na salguuf moom borom la. lan talguuf. salguuf ci la ab ci la ab xaj daan gaanu waaye di benn tànkam ndox ma di ca dem. Hmm? boobu. lan la bant. salguuf ñax la ñax la. ñaxam salguuf. waaw salguuf. boo ko jëlee. waaw. nga boole sax tag bu picc ramatu. tàgg piccu ramatu waaw ci kaw piccu ramatu ci kaw lay tàggee ah déet déet déet euh, laasana euh, na oo saltige bi mu duggaat waaw dégg ah déet li mu doon wax dafa am solo waaw wax nga dëgg alaaji borom xam-xam nga de masha allah waaye yeggalil waxal waxal parce que man xam-xam nga man gis nga bu mu wax waaw ca bu jëkk waaw xam na xale yi daan nañ ci takk jigéen takk naka takk ci ba du wax haa ci la ab xaj bu mat sëkk daan tuur ndoxam. ñolli mm. benn tànkam mu jëm ko ba ci dee des ci suuf. waaw ndox may dal ci salgu ko boo ko tàggee. waaw am loo ca def maa ngi ci. waaw moom lay wax noonu. waaw tàggu bu raamatu nag mooy nekk ca kaw. waaw xam naa picc ma te ma xonq. waaw boo fexee ba mu tàgg ma picc picc ma jóge bàyyi ci tàgg ma. waaw tàgg ma ngay din nag am loo ca def. jar na yéeg sax loolu waaye moom na dellu si wax lu ciy def déet saltige bi lancé na recherché ma saltige bi saltige mbay géey jéeg bu wakaam dugg sil parce que il faut mu may ñu lii nga xam ne mooy piccu ramatu boobu. te gis nga saltige ak ñax boobu waa ñax boobu fu mu am. du jeex. ah da ngay waaw su a mbaam bi lóor. gorom nga dem fa Kër Omar ak góos rek. waa soo soo demee foofu dafay sax. dafa jeex. <laughs> wala ñu yeggali oui wala laa jëndoo lii muy wax ni dafa am solo. waaw moo tax ni ko ñaan gis googu xam dañ ko noonu mu wax. Hmm. boobu xaj di saw. Hmm. bu ko ji xale bu jigéen jëkkee jël. Hmm. fexe ba lem ko ba mu doon aw say. mu def ko cóori tag ko. ba keneen ñu koy jébbal sëriñam góor du man ci moom dara. ah yow lii ngay mais intéressé na bi yaay yi de. Ah, ah. ba lii nga xamante ne man Alaaji utee ma di ma takkal ci samay doom yëpp. Zey <laughs> jël ki ci ligne bi allo oui. salaamaaleykum soxna si. <laughs> maa ngi maaleykum salaam na def soxna si. maa ngi fi bàyyi sant bu baax. ça va maa ngi nuyu Tata Degen. ñu ngi lay fay bu baax a baax. ak euh, tonton Ndiaye maa ngi lay fay. maa ngi nuyu di leen sant di leen gërëm. ndeysaan li ngeen di wax si émission bi am na solo trop. waaye dama bëggoon waxtaan ak ak euh, auditeurs yi. Mm-hmm. wax leen ni leen ñëpp yemuñu. déedéet ñëpp yemuñu. Mm-hmm. man mii di wax yoon yow si téléphone bi. Mm-hmm. feebar naa fi presque neuf mois. Mm-hmm. après ma doom. bu ma demee mm-hmm. ñun ma affaire rab moo la daal bi ma après sama accouchement rek. Mm-hmm. mais yàlla dafa maa booleeg ku baax koo xam ne sii mu ngi nekk si dëkku village yi fii nii euh, Louga. Kër Saalum la tudd dëkk bi. ñooñu yooyu rek lañuy ñuy faj laaju ñu dara rab rek lañuy ñuy faj dafa am ñoo xam dañ koy faj spécial am ñoo xam ne sii. xamuñu si dara. Mm-hmm. ma bëgg nit ñi bu fekkente ni ñi ngi amee feebar bi bëgg bëgg a faju mm-hmm. nañ dem utali village boobu. fu mu nekk. Kër Saanu njaay la nekk. Mm-hmm. mi ngi nekk ci yoonu Touba bi booy jugee Louga di jëm Touba. foofu la nekk Daaru Musi bi yoon Daaru Musi bi rek jëm koog gi. voilà bala nga boo paasee. Euh, dañ la faj te laajuñu dara. dara pour te dire dara. man sama benn maam moo ma fa yóbbu boole maag waa ji paa bi fa nekkoon sax yàlla def na génn na àdduna. mais doom bi moom moo fa nekk man ba tey damay jëli rendez-vous te maa ngi sant yàlla yaakaaroon naa ni dootuma amaat benn doom. ndeysaan mais gannaaw yàlla tey maa ngi boot sama ñaareel bi doom. jërëjëf. ma am maa ngi am ñaar ak juróom macha allah feebaroon naa ba defe ni dootuma jugati ci àdduna. ndeysaan ndax mais gannaaw yàlla foofu laa fajoo. ndax ay affaire rab. kese dëgg la jërëjëf jërëjëf mujj bi mënatuma jàkkaarloo sama borom kër di ko xool lu ne def lu ne daj na ko. jërëjëf lu ne def naa ko mais. gannaaw yàlla bi ma demee si paa boobu. jërëjëf si la ma yàlla defee. jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñuy gàmmoom ñuy raas dem bokk ñu. Mm, te mais li li li mu wax nii dëppoo ak li nga xamante ne Alaaji li ma la wax bi ma nekkee rajo. jeune fii boobu nga xam ne dafa ñëwoon yaay ji sonn te mm-hmm. dafa am point boo xam ne comme toog nañu ak jeune il faut ñu wax ko. Mm-hmm. xam nga maa ngi lay naan jeune fii boobu aussi yaayam moo ko indi. ci rajo ba mm-hmm. te. su daan dem di faju ji yaayam la daan àndal dem nañu ba nga xamante ne tamit ba mu muuroo suñ demee amuñu paas mu jigi dafa am benn bés boo xam ne yaay ji dafa ñëw rajo ba spécialement pour remercier ma remercier tamit ña nga xam ne ñoom ñoo nekkoon parcelle à l'époque mm-hmm. doon def loolu mm-hmm. parce que loo gis rek ci àddina bi day am sedda mm-hmm. soo fi toogee tey tey fu mu nekk ni ci kàttanu yàlla jeunes yi foog ñu tëj mhm. il faut ñu wax ak jeunes yi parce que xam nga yow am nga lucidité wu sax ba ngay gis wana biis sa waa ji waaw non bi koy ma la andi tey amul andi ah non non loolu moom passé nañ ko daaw bi nga ko waxee dama la suturaaloon ak wana bi mais fu mu ne nii ren passé nañ ko mais lu ma bëgg aussi mooy jeunes yi ba dañu bëgg sëriñ gis nga àllaaji xale yi bëkki démb fii dafa am benn jeune fii boo xamante ne dafa ñëw seet si ma bi ma seetsee alors mu ne ma ne étudiante la ak yooyu yëpp xam nga soo ko xoolee xam nga mu am bac nangam di jàng mhm. mu jékki-jékki mu ne ma taadégéen dama bëgg nga boole ma ak sëriñ nangam xam nga baax li ma la mhm. xale bi ma xool ko ma ne ko pour lan mu ne ma parce que dama war a am benn examen bu ma war a def ak yooyu yë nangam ak nangam ma xool ko ma ne ko déedéet bul dem ma ne ko bul dem ma ne ko déedéet man d'accordu ma mu ne ma non non di insister yor nga numéro ma ne ko dee déedéet man daal da ngay jël sama numéro soo jëlee sama numéro maa ngi lay jox sama numéro personnel soo demee heure sàngam nga message ma ñu waxtaan parce que maa ngi ko bëgg dissuader ci mu dem xale la moroom Zeyna ñu mm-hmm. ngi ñëw toog alors xale yi bëgg gi ñu bëgg sëriñ dafa ëpp Zey. Mm-hmm. loolu léeg-léeg da nga ciy gis bërki démb tamit bi ñu commencé thème bi il faut ñu wax ko donte duñu wax tur bi am na benn femme boo xam ne daf ma seet si ñëw ba fii mm-hmm. xam nga Euh, ndeysaan jiitu Njaay bu Mauritanie mhm. ñëw ne ma am na benn femme bu nekk ci biti dafa la soxla mais femme bi daf ma ni diw moo ëmbal sama doom wax naa la ko fii mhm. diw te ñooñu ñëpp ñun ñi majaay tamit am nañ ci responsabilité parce que tamit ñoo leen di mhm. invité xam nga mu ne ma kooku moo ëmbal sama doom ba fu mu nekk ni doom bi mu nga war a am huit mois xam nga yooyu yëpp nag su fekkente ne gis nañ ko te lépp nag ñu gàll ko ci fajum faru rab fajum faru rab xale yi di dem nee naa la ku ci nekk sa àjjuma su ñëwee ala kulli xaal di nga waaye toog ne dama yéex a sëy rap laa am uh-huh. xam nga di dem ci suuf xale yi dañu bëgg seetkat xale yi bëgg nañu sëriñ uh-huh. te koo ci dem mu def la loo xam ne doo ko nettali sa yaay doo ko nettali kenn uh-huh. traumatisme lu dul xaar dix ans après wala vingt ans après di ba ma amee vingt deux ans defoon nañ ma nàngam ba ma amee vingt ans sëy il faut que ce message là mu jaar pour xale yi toog man damay jiital déjà balaa maa wax ci xale yi may ma tuuti rek ma wax ci parent bi mhm. parce que doom soxla na waajur bu dalal xelam mhm. doom soxla na soxla na yaay joo xamante ne su jooyee mhm. mën a fomp ay rongañam ci mbaggam dëgg la su fekkee na da ko amul ci sa biir kër dëgg la en général xale yi ci sëriñ yooyu la ñuy dem parce que ñoom la ñuy def confident ñoom la ñuy wóolu te ci kaw wóolu te googu nag ci lañ leen di naxee ba tax na ñoom tamit nag war na nañu am présence esprit même su fekkee ne sa rapport ak say waajur demeewul noonu. yow mm. doom mm. jëm ko forcer. dëgg la te su fekkee ne yow munoo diisoo ak say waajur. Mm. munoo diisoo ak keneen. te niñ koy waxee tata dëggeen jabarkat yi dañoo bëri léegi ci dëkk bi. Mm-hmm. sëriñ te taa sëriñ yu ci bëri gis nga même nañ ma jéggal nag parce que ci télé laa nekk et tout ça. ñu si bëri dañuy ut promotion di dem ci télé di dem ci rajo yi. njabarkat yi voilà njabarkat yi. Mm. et après par la suite pour mën a uri xale yi jigéen yooyu la. Mm, mm, parce que dañuy ñëw wax lu rëy loo xamante ne automatiquement. xale yi ñu bëri bougé wu ñu allah dañ leen di wóolu naan waa jaa ngi na kii moom dafa aay te mm. suñu demee ci kaw loolu lañ leen di naxee ci lu bëree bëri mm. Mm. moo tax xale yi war nañu def attention mais parents yi tamit war nañu mën a déglu seen doom ba yooyu yëpp ni ñuy soloo bërki démb dafa kenn ku ma waxtaanal maa ngi koy nuyu bu baax a baax bu andi beneen tam non non non ni ñuy soloo pour dem ci ci ci ci ci ci jabarkat yi ci sëriñ si non c'est important parce que góor ma ko tamit boroom xam la mu ne ma xam nga dafa am yenn yoo xam ne mu ne ma man mii dama dëkk ak ay jabar ak samay samay doom mu ne ma am na client yoo xam ne suñu duggee sax sama jabar daf may naa xoolal kii mu solo pour ñëw fi xam nga tamit sooy dem ci sëriñ waaw ah, waaw yàlla bu yàlla dog waaw amin amin alaaj euh, gis nga déggeen hmm. wax ci rajo mbaa télévision doonu téewuta doonub sëriñ dëgg la téewuta doonu sëriñ maa la wax loolu dëgg la ndax bu doon loolu imaam du xutba ci tire dëgg la Mhm. conférence du am ci rajo. dëgg la mhm. jukk la ñu indi. dëgg la. Mhm. am na ñu feeñ ci tere. dëgg la di feeñ ci rajo yii. dëgg la am na mu sax boo ni melee dugg këram. ñu li ci biti. dëgg la waaw kay. gàcce gaalaama gàcce gaalaama demal mu. du jeex ñëpp duñ bokk yem dëgg la alaaji. bu ñëpp yow ko géddi cëram. dëgg la xale yi am na col gu boo ko dee sol di ko dem ci nit di ko fekki. dëgg la bu nit ko melee ne yow. loolu mu la teg yow a. dëgg la parce que yaay publicité. dëgg la publicité marché bi nag ku jënd la bëgg. waaw kay. comprendre nga. Mm-hmm. nit ku baax di yiw. Mm-hmm. boo dee gone. Mm-hmm. am loo bëgg te muy baatin. dëgg la lépp yàllaa ko dëxëñ. dëgg la feeñal ko yombul. dëgg la waaye na nga yiw sol la jot sëkk. dëgg la boobu la nee jàq. ah ah waaye ñëw fii sa sa sa cuusu ween yi di feeñ. Ah, ginnaaw bi ginnaaw bi eh, nga def ah, ah, suufee te te doo sol dara. xale bi li mu barki démb dama doon waxtaan ak Serigne Bassirou Ndiaye Kër Mbaye Fall. mënu mm. ma léeg-léeg dee bàyyi soxna ndigal sax muy bañ di wóoy. ndeysaan ndax mooy tax nañ ñu bañ ñu bon ñëpp feeñ. Mm. ndax ñu ngi laafaar rek. Mm. di wax rek nag. di jëf ñëpp dugal cib saak tan ñu wax ne ñu cib na xam nga bu ñu rek sëriñ si. day bu rëy. jabare yi. yi xam ni. dañoo mënul. mëtuñu sëriñ mëtuñu jabar. tam la ñu bëgg ñooy jëf di faam. waaye am na ñoo xam ne ñu soxna diggante. seetal xale bi ëmb. Hmm. ñu dem gisuñu doon baay ba hmm. gisuñu gisuñu sa eh, jabar ba. ah doy na waaye. li dem adresse. Hmm. ne ci ab dëkk juddoo fa. sa baay am lu mu daan jëm ak sa ndey. nga judd ci roy ko. liggéey fa lu ñu àddina bépp di wax. te mënoo daw mënoo buuse. loo jëf yoon nga koy teg. te bu ëllëgee doo mën a buuse. day am waaye xale yi jigéen ñi nañ di woddu. nañ toog di woddaan ak seen i waajur. leen seen i attends su fekkente ne ne que gis nga lenn loo xamante ne ne que yëg nga ko ci yow mhm. mais ay religion yëpp mën nañu prière te sellal ci la lépp nekk comprendre nga nañ mhm. jàngi mhm. fu mu nekk ni am na lenn loo xamante ne moo mën lu ne su dee jullit nga di mën nga ko jëfandikoo di am jàpp tout le temps di ñaan su dee catholique nga ngay def say prière waaye xale yi léegi ku ci mujj judd moo la gën a bëgg sëriñ uh-huh. gën laa bëgg seetkat te ku ciy dem sol sa cëg down sa lépp di down c'est pas de notre faute. fautu kan la c'est pas de notre faute parce que xale boobu ngay wax ne day dem ci sëriñ sol yu gàttam. waaw du ci kër la jógee. waaw romb na papam romb na yaayam. romb na sa bu ko ci baadu waaw waaw su fekkee ne dafa dem ba ci sëriñ bi soxla ku ko faj. waaw mais c'est parce que amul ku mu waxal ci biir këram. loolu am na yaayam xamalu ko dara papam xamalu ko dara. parce que firiwuñ sax seen kanam ba mu mën a waxtaan ak. loolu na kon nag wax dëgg fa yàlla nag su dee am nañ ci wàll tamit. Mm. bëriwul xanaa rek di leen ñaax nag. Mm. même bu fekkee ne parents defuñu seen rôle ñun nañu xam fu ñu teg suñu tànk. ngeen toog ngeen toog leen. loolu di circulé. mais tout à dégg na kaay ma wax. damay ñëwaat ci parents yi parce que mm. Mm. xale foog mu am ku mu waxal mm. su fekkee ne da nga yor sa doom ci sa biir kër waxul ak waxoo waaw waxul ak yow dina wax ak mbedd ma dëgg la dëgg la wala mu wax ak seetkat ba dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la zëy dëgg la dëgg la dëgg la tàggool askan wi waxtu wi daanaka dab nañu mm-hmm. laasa na gisuma samay écritel de xam nga nag dafa euh, ñu ma habillé Euh, man moom tàggu naa téléspectateur ñu doon seetaan. te moom tu as une belle tête. ah oui merci xanaa di remercier complexe Sophia coiffure nekk Mamel aviation. ñoom Adam coiffure bi ñoom Adam. ak ñoom Binette ñoom Fama ñoo ma coiffé di leen wax à lundi prochain dans Wareef. soo leen damay ñaan suñu benn euh, xarit bu na sopp trop. ndeysaan sopp naa ko di ajaratu Maymuna Dem. ndeysaan. Euh, tubaar kàlla di xaritu soxna Awa Gajaga. ndeysaan ndeysaan ndeysaan soxna bu baax ñu sëriñ. Euh, Modou Boussa Dieng. ndeysaan ndeysaan ak Serigne Abou Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Falilou. macha allah macha allah fu wér jaar ma di leen seetaan. ndeysaan ndeysaan soxnaam su baax soxna Touré. ndeysaan waaye maa ngi ñaanal it bu baax a baax nag. Mm. Euh, ki nga xam ne mooy Serigne Alaaji Babacar Sarr. ndeysaan di transitaire nekk ca port. ndeysaan ak ku baax koo xam ne kii itam mooy Alaaji Baba. ndeysaan ak soxnaam euh, Mintu. jërëjëf waaye sunu colonel bu baax ma nag du waañ nekk ca Bamako. ndeysaan di colonel Pape Euh, si di ko leen a duwaañ ko siyaare bu baax di ñaan bu baax nag ajaratu Léna Fall Diagne ndeysaan jërëjëf gërëm Aminata suñu doom bu baax a baax jërëjëf ci Zurich euh, ak aj Serigne Fallou Galas Mbacke Mané ndeysaan ngi koy ñaal waaye ma di la joxit nag yóbbante Seynabou Niass ndeysaan euh, tubaarkàlla ni fi almadi ndeysaan ci mbiri na bàyyi bokk fa ndeysaan sanga bu baax ñu di ko wax Serigne Bassirou jërëjëf jërëjëf Alaaji ñu ngi ko ñaal bu baax ñu tënk ba suba rek incha allah Alaaji delluwaat rek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 alaaji di remercier bu baax a baax rek waa complexe d'assaut ñi nga xamante ne ne ñoom ñoo ma euh, habillé nekk ca Liberté 5 villa 55 31 seen écritel mu ngi jàll nii ah ñu ngi leen di remercier téléphone bi di remercier bu baax tamit nag euh, Sémou Sarr mi nga xam ne moom moo defar collier bi nekk ci Anne Mariste gis ngeen téléphone am mu ngi jaar nii ah ñii ñëpp nag dañuy jàpp lool lool lool lool. ci solo Awa Awa Gueye Laye waaw waaw waaw dégg ni daaw waa dëgg la madame Ñing waaw waaw foog mu yeesalaat ko waaw dina ko yeesalaat foog mu yeesalaat ko waaw alaaji ndeysaan di nuyu bàjjan un café avec ku ñuy topp la ah, bàjjan ku ñuy topp la ndeysaan fatabakàlla macha allah li duuf ci nag yëpp daal xajandoowu ci cin bi ma madame Jaxate ma nekk ci Touba ak sëñ Fàllu ah, Fatou Bintou Rasoul Samb ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ak waa Touba yëpp ñu ngi leen di sargal alaaji penn mbub suñu doom madame Thiam takk nañ ko penn mbuub Tamsir mbuub